asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. ñoo ngi leen di nuyu bu baax leen siyaare bu wér. tey jii nag ñu ngi fii ci bi bio muy cabinet Serigne Lamine Bara Fall dimbali surtout sama mbokk góor ñi wàllu doole bi wàllu ngóora wàllu kàttan ak wàllu sëy pour lu yokk guddaay bi yaatuwaay bi rëyaayam ak dëgëraay bi muy ñetti pomade yi ñoo koy def en même temps dañ leen di mayaale ay garab pour faiblesse sexuelle may la pour éjaculation précoce ci kàttan yàlla kon képp ku bëgg jokkoo ñun mën nga ñu woo ci 77

ñu xefee ni ñu ci dimbalee ci baaxu yàlla ci màggu yonent bi ak aminu sëriñ bi jërë ngeen jëf merci.